ko ah maa ngi lay ngi lay fay bu baax a baax a baax mhm. suma doom day suma xel si baaw ko yàlla na wér maa ngi baax a baax waaw sant yàlla di julli seen alayhi salaatu mhm. sant di gërëm sama ñàlla bi mhm. ñaar yàlla sama borom Sénégal yàlla sama borom wàcc fa xewal ak jàmm asalaam wàcce ko kilifay diine ak kilifay aada yi may ñaanal suma ñaari waajur yal na yàlla sama borom teeru yërmandeem dëkk leen sa jëme ak mboolem jullit di jullit may sant di gërëm tey Roussard mi nga xamante ni tey taxaw na sama côté comme taxawaayu waajur mhm. yàlla na ko yàlla sama borom fay dëgëral ko lafal ko ci seytaane musal ko ci pexam noonu yokk xewalam ak mboolem kontaan trop ci déplacement bi def ñëw tey Gambie ñëw mhm. Sénégal ñëw Gambie ndax Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndaw ñoo ndax lamb ji lambu Sénégal bi yàlla mhm. boo gisee jëmeeke promoteur bi xam na di xale bu ndaw xam nga génn xaalis bi tal xam nga def bi pour bëggal ñaari réew ñoo tax dañu nag gàmm ñoo bokk ndey ak bàyyi mais wax dëgg yàlla moom kontaan naa trop ci interview bi xam nga ñu yàlla sama borom rek lu fi indi yàlla yàlla sama borom defal lu koy suñu suma diggante xoyantaan muy doomu Sénégal man mooy doomu Sénégal moom mu nekk Gambie tey di fi bàyyi waaram ba yàlla def ko fi roi des arènes moo war a bëri moom fii si Gambie tey jii mhm. yàlla sama borom yàlla sama borom dafa ma dem si kawam ma xool leneen li ne sama kanam solo mais bàyyi ci suba man dama doon déglu sax rajo bi hmm. Afrique sell la ah, bu noonu la rajo bi tuut hmm. waaw ngeen ngeen ngeen fa doon def benn jàkkaarloo yéen ñaar mais dafa mel ni neer yi tàngoon na sax ba mu xaw a tàng yéen ñaar ba ngeen xaw a bëgg a laale ci biir studio bi lu lu andi loolu non xam nga tey man wax dëgg yàlla man lu ma di jaay rek doom doom si doo wax gën a hmm. boo ma jaayee baax damay xar ma a baax mu ci àdduna boo ma jaayee ngor damay xar sama tànk tubéy doo ma gën a gore mais boobu ma jaayee réewoon it doo ma gën a réew xam parce que tey lu bon bon tey ñun Sénégal lañ jógee ñëw moom moo nekk fii nii ay ganam la ndax premier face à defoon Dakar Thiaro yi euh, bi defoon Dakar fee euh, studio bi Iba Mar Diop noonu xam moom moo jógee woon ñëw senegal bu mu ñëwee ma bàkku ñëw akalaa ko xam ñu def naay senegal yi ñëpp tàkk ñëpp kontaan ma yaakaaroon ne man su ma ñëwee fi tey jii noonu lay demee quoi dina ma accueillir affaire jom jom suma gëdd mais exactement ñu jógee Dakar def traitement avant ñu ñëw fii ci affaire bi def traitement ci rajo bi waa mm-hmm. mu toog ay quelques affaires yooyu quoi def émission ak ay quelques personnes mm-hmm. ci ak promoteur bi mm-hmm. ak Lamine dugg toog duñ duggee toog sama rek taxaw sama ginnaaw mu jékki-jékki na sama rek bi hey génnal ci biti ah. affaire yooyu quoi ndax da ngay gën a bàyyi fos da ngay gën a yib wax Gambie ay bàyyi fos bàyyi fos waaw muy par force ma ne waaw ma ne waaw kii moom kii wér na pourquoi am na sama rakk bi day gën si biti ma ne kii gënul léegi après mu ne moom moom après mu ne moom dafa am ñu àndaloon xam nga euh, gars yi def interview ne génne sama rakk bi day génne ma ne garaawul kon ma ne booy bi ma ne waaw baa mu ngeen nuyu ma ne dama dama ci biti am problème booy bi daal di génne bu booy bi génnee émission bi commencé daw moom mi waxtaan xam nga ay fansam di ko oh, di ko ñaanal affaire yooyu quoi parce que ni ne sa mbër nga am. bien sûr il faut nga ñaanal sa mbër xam nga. bi wax ma après nag may man émission yi ma xam dëgg. di ko def Sénégal. Mhm. boo invité ñaari mbër ñu toog. Mhm. bu benn mbër mu nuyoo ba pare da ngay jox beneen mbër mu nuyoo. bien sûr mais man du ma toog fii xoyantaan di wax bu ba léegi nuyoo ay fansam di envoyé message ngeen koy jàllale direct man ma toog man ni essai damay laaj ba xam émission bi maa moom ñoo ko bokk wala moom rek xam nga mu ne da ngay da ngay mën a toog mënoo ko mu ngi mu ngi génn si biti comme génn naa si rek bàyyi foos moom mbër bi mhm. ma ne bëri man a kaw da ba def dox ko man maa def loolu mhm. man lu ma def dama ci dellu ginnaaw la mit billaahi wallaahi tallaahi mhm. te bu doon teg appareil fo dama koy dóor billaahi wallaahi tallaahi mais bëggu ma ko woon a jaxase foofu di nga xamante ne di jàmbur yaa ngi dégg ba sa daf daf affaire yi réew na la def affaire yi ñàkk teggin xam nga te def li fi champion man ngir yàlla na àndal dat bi mu gën a jege su ma loolu laa ñaan yàlla sama bu ngeen teel a laale waaw kay waaw non di ngeen laale moom yàgg yàgg di ngeen wàcc non xam nga lan moo tax waaw mu dafa réere mbir ci lu bari mooy lan waaw yaa ngi dégg xam nga tey li ñuy wax naan boo nekkee ci jafe-jafe sa njàmbaar du feeñ moom mu yaakaar yi ñu doon bëral ak man ñoo bokk te xamul li bokkul mbaaru daal diggante bi lu nekk yaa ngi dégg xaj na fi lu nekk changé na fi ci diggante bi xam nga la yàlla dimbal na ma am naa jàppale boo xamante ne aw ma ko woon yaa ngi dégg mais si instant boo am naa jàppale boo xam aw ma ko woon. Mm-hmm. yaa ngi dégg Tahirou Sarr xajul si combat billaahi wallaahi tallaahi. Mm. Tahirou Sarr xajul si combat ay lamb yi. mais man dama la gis physiquement dama gis mm-hmm. ngay ñàkk ñun ñii ñu ngi toog feex mais yow yaa ngi ñàkk rek daa mel ni bàyyi dafa yokk entraînement yi dëkk gën a yokk. jàmbaar euh, ba suma papa génne àdduna. Mm. sax lu ay juróom-ñetti fan yooyu noonu bi ñu commencé wàññeeku rek. Mm-hmm. laa commencé entraînement boobu ba léegi amul samedi amul dimanche même jour tamit dama ko entraînement. ba ci tam xarit bi ma ko entraînement six jours damay entraînement aw ma repos aw ma samedi aw ma su ma xalaatee lu bëri rek damay rey sam bopp ndax combat yi ma mujjee bëri yëpp mhm. sam papa feebaroon na yaa ngi dégg mhm. tey ma man ma bëgg coup à coup rek pas wér maanaam man may jël combat yi ma neex damay jël combat mu ne combat bi neexul kenn mhm. man a garaaw naa ko jël yaa ngi dégg lu waaye wax baax ngi gis waaye man soo baa bëgg tëdd wér rek loo si yàlla wërsëgale mu ndaw mu bari yaa ngi dégg ma xëpp ko ci paa bi ngir bëgg mu wër da paa bi trois ans tëdd feebar affaire yi quoi te man xam xam bi doomu doomu yaay laa doomu bàyyi laa man yàlla dafa def ma teel tax sumay waajur xam nga lu leen dara ci biir combat yi moo yëpp si ginnaaw billaahi wallaahi taala entraînement moo normal waaw man nan ma fay rek ma ñëw xam nga ordonnance amee ma dem jënd ordonnance wala lu ma war a rek si gàlle bi ma dul ko yi quoi moo taxoon mais boo bëlee ne yàlla dogal na maa suma entraînement yi baax a baax a baax xam nga instant may sentir loo xamante ni allah mosuma suma carrière ma juddoo bi léegi yaa ngi dégg moom daaw ma nelaw guddi daaw ma nelaw bëccëg damay tiim lekk sax mais pas pap su ma woowee damay damay suuf su ma ñëwaatee duma a lekk ngir bëgg maanaam am yërmande ci moom bëgg mu wér solo mais instant bi moom liggéey naa liggéey boo xamante ni toujours loolu laay wax waa Gambie bi Koyanta tuuti la ci am man li sama kanam laay xool. mbaadu li mu def ci rajo bi dina ko coûté cher. bu non dafa réew ba dof xaw ma ab xoyantaan xaw ma lu mu doon. <laughs> non dafa yëf champion quoi ni da ngay da ngay da ngay wax sax. mais ñoo est-ce que xoyantaan yomb na affaire da joxe gëdd. dégg a daanu da ngay joxe cër waa yow jàmbaar. Hmm. la njëkkee dafa rampé ba tas mënu fa dara mu métti mu ñëw fii Gambie te Gambie lamba demee ko fi noonu par rapport Sénégal Sénégal la lamb gën a yomboo fuuf. Hmm. mu ñëw fii Gambie amuñu mbër amuñu dara ñu samp ko mu daan fi ay quelques combats xam nga bëre mu bu nekkee combat mujj bi bëree bëree bëree bëri ëpp ñu jox ko nag ay roi des arènes ndax ñoom Sénégal mu ngi teg ay ay roi des arènes ñoom ñu profité taf taf ne il faut ñoom roi des jël boo xam ne jox ko nag ay roi des arènes xam nga ko nag mais li mu def tey moom vraiment ñaanu trop. mbaa du mbaxana moom da nga ko naraat suñu yóbbu ko Sénégal. dégg nga lu la wax. non kii li mu dafa dafa ñaaw billaay combat bi su ma ko fonkoon benn benn fonk naa ko fukk. Mhm. parce que bu mu ñëwee Sénégal man dama kaa teeru teral ko. ànd ak moom ñu bàkk bég ñëpp bég. Mhm. ba ñëw fii ci rajo bi mu taxaw di def affaire affaire réew pour lan. toog ci plateau yi vraiment da ngay war a toog mënoo ka nga génn ci biti fii sama dëkk la maa moom rajo bi waaye ma ne yow sa bàyyi damaa mën a bougé fii ñaar ay a ma ne ko sa maamaati maam sax damaa mën a jële fii ma ne ma ne ko yow yaa réew waaye kii moo sob waay yow xaw ma xoyantaan xaw ma coxataan yàlla ci yàlla bu jàmm salaam bu jour incha allah na xam ni ah. man daal li ma koy ñaan rek incha allah waru su na taxaw bay bay na dëggal boppam daal mu jëf am solo. waaw mais loolu gëm naa ne li ma def tey fii ci Gambie fii. waaw barki sëy naa limaam boo firee sifile ma tas ko mu arrière ma dinaa que dina arrière. dégg nga li ma la wax non ki li hmm. naa ne am na am ngor boo xamante ni ba du sufee du arrière. Ah, naa na am ngor boobu ndax li mu def dafa ñaaw waaw bu taxawee lu ko ciy fekk. dégg nga si yàlla yóbboo jàmm ak salaam rek. dóor mu am seen na ci am lu ne dégg ma la Koba ma ko fonkoon benn gën naa kaa fonk fukk. def tey dafa ñëw Sénégal ma teeru ko teral ko ma ñëw fi mu bëgg ma toroxal bëgg ma yàlla pourquoi. yow bi nga dëgg yàlla moom moom ma ko gisee moom. wax dëgg yàlla na ne entraînement man daal sama xam quoi mais gëm naa ni maam moom instant bii nii nii. làmb làmb nag làmb la quoi. mais billaahi wallaahi taalaa li ma liggéey xaaj ba xaajaat ba liggéeyu ko pour mu leer. looy tàggoo ñu lay séntu ci sant yàlla bu baax a baax dañu yàlla sama borom delloo su waat suñu ñëpp ñu def fii yàlla moom. Mm-hmm. delloo Sénégal si jàmm ak salaam nekk suñu activité ba combat bi ñëw ñu am àndandoo waat ñëw fii Gambie. Mm-hmm. yaa ngi dégg yàlla may nu dem ci kaw xoolal tànn kaw coxataan xaw ma ñu jël waa des arènes ba ba ba gis ñu jël ko sànni ko géej fële. na ko doo fi dara yow mu jeex ah, am na solo. Ah, benn ci yow yàlla bu wér. yaa ngi dégg. waaw képp ku may jàppale maa ngi lay sant la gërëm di gërëm suñu kaw Babacar bu baax a baax di gërëm Souleymane Ndiaye borom SDD yoonu naat ange yàlla na ko yàlla sama borom fay gis naa taxaw bi yàlla na ko fay tayru moom dama koy gërëm rek yaa ngi dégg ndax sama diggante moom nekkatul affaire yi jàppale wala affaire yi xam nga dafa mel ni maa moom ñoo bokk ndey ak baay ndax position taxaw moom dafa garaw wallahi xam nga bi la ñëpp di daw hmm. muy metti mu ñëw fekk la nga taxaw hmm. ne ci ay jafe-jafe ay coono mu téye sa loxo ne la dara tey jii dama la yëkkatiwaat te ba ma waxee loolu ba léegi hmm. chaque jour mu may jàppale billaahi wallaahi tallaahi hmm. lépp lu ma bëgg a suuba kon ma koy defal yàlla na ko yàlla sama borom fay sàmm ka sàmm njabootam jamaïcain rek promoteur li ma koy wax mooy mu am di hmm. attaqué waaw parce que affaire bi boo ci nekkee di doog dugg tey di promoteur dafa am waaw kay ndax tey maak waa ji bi ñu bi bi jaxasee affaire yi foofu coo am ci biir rajo bi moom xaw na jëndaxe quoi ah, nga xamul ne loolu da cee war a kontaan te xam loolu da jaay combat am xam nga <laughs> kon moom xaw naa jëndaxee te ma ma ma koy conseillé rek boo boo liggéey bu tëggatee ñaari bër coo daa di am xam nga bu jëlee sax mu dolli bëri na jël xaalis dolli leen mais bu mu jànnaxee ndax affaire góor la lamb la loolu la de la amul a waaye doon tese dama wax doon xool ba xam quoi toll yéey hmm. doon xool te xamul ni man saa su ma tiitee rek hmm. doon lamb daj na doon lambatu ah. ba ñëwee muy jéem a ñaangal ak ñaawee bi rasta bi tilim yooyu a yaa war a xam quoi waa ji moom am roi des arènes la xaw mais ku ñàkk a teggin ku ku yore la kontaan naa mais yàlla na si yàlla yóbboo jaamu amiin amiin jaajëf jaajëf yaa <laughs> ah, dégg ngeen loolu avant première la kon xam ngeen ne diggante xoyantaan ak bàyyi ma ñoon du yomb coxutaan neew waaw la bàyyi wax waaye waa Gambie xoyantaan la wax ñoom dara du tàkk ne xoyantaan ma du tàkk du léegi daal li leer ba leer yàgg maar dañuy joxante ak daw laaxu la Sénégal la nekkoon man fa dara mu ñëw Gambie di yéen koo koy bàyyi ma ñoon moom xam nga làmbam day metti waaye loo ci mën a dégg moom jamaykee am na mérite parce que fexe na ba tëgg ay combat bi ne indi ko Gambie yàlla na ko yàlla dimbali mu réussir ko ak ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax nekk rek Sénégambia la ñu wax vive Sénégambia vive Sénégambia vive Sénégambia Adama Barrow président Macky